dali na jàmm ñoo ànd xëy yër yéen ñu xëyandoo yéen i gi di réew mi ko di jenxëy di ñu xibaar naan ñu àtte bi nga xam ne a dox diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang fukki fan ak juróom benn ci weeru février bi nga xam ne moom la ñu génn lu toll ci fanweer ak benn ñoo xam ne tegoon nañu leen loxo démb la ñu leen doon àtte journal bi di réew mi ko di moo xëy di ñu ko xibaar waaye nag am na si ñenn ñoo xam ne démb ca tribunal bi dañoo wax ne dañoo bëggoon a dugg ci tribunal bi ñu ne leen du ngeen fi dugg am na koo xam ne nee ko tege loxo manifesté wul maanaam deful lenn kuñ naan Serigne Gueye kookee tamit nee na da doon ñëw ci tribunal bi ndax dafa amul rendez-vous ak benn greffier bu tudd maître Alioune Camara ñu daal di koy teg loxo am na ko tudd Saliou Ndiaye koo xam ne commerçant la maanaam da doon jëndi ay garab ca kër Serigne ba ñu jàpp ko kuñ naan Moudou Gueye kookee tamit Sandaga la doon dem yor ay bagaasam waaye nag nee na bagaasam yëpp daat nay yàqu ndax nee na politique intéressé wu ko waaye ay soxlaam ak yitteem la doon dox ñu daal di koy jàpp am na juróomi étudiant tamit yoo xam ne ñoom ca université Amadou leen tege loxo yéen a kaay gi nee nag procureur bi la mu bëgg mooy ñu tëj leen lu toll ci juróom benn weeri kaso journal bi di réew mi quotidien nee na ñooñu nga xam ne teg nañ leen loxo ñi nga xam ne ñoo leen doon layal niki démb lu ñu yëkkul policiers yi dañu ko fàtte ndax moom la wax ndax ñi nga xam ne ñooy takk derrière maanaam ak pëccxu rekk la ñu fi andi ak di séquestrer nit ñi ci anam boo xam ne teguñu ko fenn ndax ndaw ñi nga xam ne jàpp nañu leen dañu leen a jàpp ci anam a Sarr mi nga xam ne moo leen di layal nee na police politique sax jamono ji moom la ñu gis ci réew mi ndax ñi nga xam ne ñooy waa police jamono ji yëfu politique la ñuy def yéene gi nee ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru février la àttekat yi wax dañ leen di tëj wala duñ leen di tëj ak ñaata lañ leen di tëj bu dee dañu leen di tëj yéene kaay gi délibération nee na Achara Fall mi nga xam ne fan yi ñu génn tegoon nañu ko loxo daal di ko yóbbu ca kaso ba ko ca kaso ba yóbbu ko sûreté urbaine dafa am benn vidéo boo xam ne dañ ko see gis muy wax ne procès public amee danañu Adji Sarr journal bi nee na boo muy tulee beneen mandat dépôt moo koy yotta yéen kaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar naan ñu élection présidentielle 2024 jamono ji dara léerugu ci ndax xamuñu kan mooy dem ci élection yi ak kan moo ci du dem ndax ki nga xam ne mooy Macky Sall di Ousmane Sonko di Karim Wade ak di Khalifa Ababacar Sall soo muy tulee duñu sa bokk waaye leneen li nga xam ne tamit moo ciy gën a doy waaram mooy lu jëm ci wàllum a février 2023 maanaam ñeenti bi ñu ko falaatee ci atum 2019 yéen a la Tribune xëy ñu xibaar naan ñu Macky Sall dafa bëgg a nelawal opposition bi ci lu jëm ci wàllum parrainage ñi nga xam ne ñooy kujje gi opposition bi ñoom ñëpp ñoo war jël xeex bi def ko seenub xeex ànd ko xeex ko yéen a kaay gi de ñu xibaar naan ñu ñi xam ne ñooy waa PDS élection présidentielle 2024 yi léegi tey mu ñëw waaye seeni mbir jamono ji dafa gëllugosee demul cee nga dikkul yi nga xam ne moom lañ doon def ci base bi jamono ji defatuñ ci lenn seen yi jamono ji mën nañoo wax ne dafa dee yéen kaay gi di réew ko di jeex xëy diñu xibaar naan ñu député bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag mer nañu ba mara détail yi niki démb ñaawlu nañ bu baax baax yàccaaral gi nga xam ne njiitul assemblée nationale daat na ko yàccaaral ndax nee nañu assemblée nationale jamono ji deful liggéeyam ndax li nga xam ne moo ko war a mooy mu contrôler action gouvernement bi évaluer politique publique bi waaye na jamono ji amul lenn loo xam ne assemblée nationale ma ngi koy def yéen kaay gi di 24 ñu xëy fekk ko waa yeewu askan wi nee nañu assemblée nationale ci chômage la nekk waaye nag ñoom li ñuy sàkko maanaam haute cour de justice ñu daal koy taxawala topp ministre yi nga xam ne ñoo ngi leen di tudd ci njombe yi giraawali yi am ci fond covid 19 bi yéen i kaay gii di ñi nga xam ne ñooy waa coalition yeewu askan wi ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax bi nga xam na ci ñaari député yi di Mamadou Niang ñoom ñoo ngi ñu daal leen di bàyyi yéen i kaay gi de xëy di plainte bi Ousmane Sonko plainton maître Gabi Sow ci lu jëm ci mbiri Adji Sarr jamono jooje Ousmane Diagne mi nekkoon procureur général moo jëloon mbir ma daal di koy dénk waa dikk léegi moom Ousmane Diagne nekkatul procureur général waaye avocat général ca cour suprême dossier boobee fan lay mujj yéen a kay gii di Les Échos nee na rapportu cour des comptes bi ñi nga xam ne ñooy daje jamono ji commencé nañ leen a woo ñoo ngi jàba jonge diggante seen kër ak dikk yéen gi nee na am na si ñenn ñoo xam ne jot nañu leen a dégloo ndax Mamadou Ngom ñaa déglu nañu ko Madeleine Sissane moom tim déglu nañu ko Sall ak ñeneen ñoo xam ne jamono ji ñoo ngi leen di xaar yéen kaay gi di réew mi ko di jeen nee na Ousmane Sonko ma ngi woon ci diiwaanu Yoff ni ki démb moom Ousmane Sonko nee na nag jamono ji bëgg-bëgg mooy jàmmi réew mi dalug réew te loole moom la yàgg a woote journal bi nee usman Ousmane Sonko daan nay rassuré ñi nga xam ne ñooy laayeen yi laas yéen kaay nee na Mouhamadou Lamine lay mi nga xam ne moo yor kàddu laayeen yi daan nay wax Ousmane Sonko na ko ñun jàmm la ñu bëgg ci réew mi Ousmane Sonko na ko mantim jàmm laa bëgg ci réew mi te loolee laay doxee Mouhamadou Lamine Laye na ko Ousmane Sonko maanaam am moom kenn mënu koo jotee ci mbedd mi waaye ci urne yi xaar leen urne yi Ousmane Sonko na ko jamono ji man li may woote mooy jàmm waaye nag saa su nekk man la ñuy ciblé te Macky Sall jamono ji dafa am a projet boo xam ne maanaam dafa bëgg ma bañ a bokk ci élection présidentielle 2024 yéen kay gi di 24 heures xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci diabolisation yi nga xam ne ñoo ngi koy diaboliser Ousmane Sonko mbir mi jamono ji mbir mu doy waar a doy waar la yéen kay gi de Le Quotidien yor yor di ko dëgg la nee bu ñu waxantee dëgg nga xam ne ñooy waa APR dañuy jéem a diaboliser Ousmane Sonko ak nag loolee dañ seen lajji mouvement des doomu Daara patriote taxaw na niki démb la ñu def lancement bi yéenekaay gi de la témoin nee na Yoff ak Njaasaan jamono ji ñoom ñoo ngi woote apaisement maanaam ñoo ngi woote dal yéenekaay gi di sunu làmb xëy di ñu xibaar naan ñu Zallo wax na ci combat bi war a dox diggante rëg-rëg ak Sa Thiès nag daan nay wax ne bu ñu waxante dëgg rëg-rëg mooy favori ci combat bi war a dox digganteem ak Sa